Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa sallim. Mbok yi ñoo sétan ñi déglo ñu ngi délé ci wat ak yeen ci suñu programme Minbarul Islam. Ki nga xamne mo leen koy defal di suñu mbok di Cheikh Muhammad Hadi Silla. Légui ngeen waxtaan yi nga xamne xus nañ ko ci passé yépp. ci affaire yi njaboot gi ci affaire néegu sëy yi yi nga xam ne moo koy jubal yi nga xam ne moo koy dëgëral yi tax muy gën a yàgg ca gën a am solo nekk jaamu yàlla itam yooyu yëpp naa ne dégg ngeen ko bu leer tey nag dañ bugg ñu ñëwaat tam ci njaboot gi nga xam ne ñooy meññee ci néegu sëy yooyu njaboot yi fay ñëw mooy xale yi nga xam ne moom lañu moom lañ euh, ñooy am ci néegu sëy yooyu xale yooyu itam nga xam ne ba nga xamee ne wala lu jiitu sax ñu juddu walla lu jiitu sax xale yooyu di sosu lañ ñu tëraloon yoon boo xam ne ci lañ leen war a jaarale lañ ñu tëraloon yoon boo xam ne foofu lañ war a jaar mën ko ba xam ko nga xam ne bu ñëwee jaar ga dafay yomba njaboot googu itam sosu ca ca ñoom itam ñooy war a doon si beneen société boo xam ne mooy ñëw si bu fu mag ñoo ñu bàyyeekoo waaye fekk ne yoon boobu miin nañ ko xam nañ ko ca yoon bi nga xam ne sharia moo ko rëdd yàlla wax ñu ko alquran ñëw feddali ko yonent bi kon ñëw feddali ñu ko yaakaar naa ne bon moom mi nga xam ne du juum ci nu mu doxalee rek lépp lu ñu sant rek bon loola mooy li wér loola mooy doxalin bi nga xam ne moo jub mooy dëgg mooy bi nga xam ne moo fiy des parce que moom moo xam tey xam ëllëg ba lim ñu sant rek buñ ko doxalee lim ñu ko santee du am benn problème ba nag ci mbiru njaboot googu tey eh, ci lañ bëgg a waxtaan ak yéen sëriñ Mouhamadou Hadi dina leen xuusal ci affaire njaboot gi nga xam ne ñooy meññ ci néegu sëy bi moom sëriñ Mouhamad Hadi njaboot googu nag ñun ban ak wala lan lañ leen war a jaarale ba nga xam ne fi nekk nii dinañ doon meññeet boo xam ne bu ñuy jëriñoo la mustaqbalan bismillah tabaarkalla alhamdulilahi xasis alkabir xalim alxabir waahidu alqahaar suma salaatu wassalaam ala asraf alxalq muhammad ibn abdallah sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk yi ñuy toogat bokk yi ñuy seetaan xaadi Muhammad Lamin ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen bal xaq di leen bal xaq seydil karim xaqu njaboot ci biir ki leen joboote lu jar a la ndax xaq bi jaar diggante ki njoboote ak ki ko joboote ci laa xamee teyam ak ëllëgam ndax ci laa xamee li ko war ak li ko warut kon dafa mel ni ku sëy ku nekk ba yàlla dénk la doom mat ñaar ak ñett ak ñuy ko tuddee njaboot kon dafa mel ni yàlla barkeel na sëy boobu waaye nag yow mi ngi ko dénkoon sa dénkaane dafa gën a yaatu ndax dafa wax ne kuñ dénk ku nekk lañ la dénk dañ la ko laaj te soxna si dañ la ko dénk muy borom bi ñu moom ak bokk yi la ko jox nga sëye moom yàlla dénk la ca doom nga bokk kook doom bi ñu la dénkoon nga am ci doom yow ku la waxoon na àq am na ci war nga xam ne àq am na ca ndax fi mu ba ñëw ci yow ab cër la cër nag kuñ ko cëral ku nekk am na lu la war ci cër ba loolu mooy xaq bu ñu ko dalee nag fa ñu ko islaam sante woon nga jàpp ko te la ko su doo ji màggee rek mel ni nga bëgg ala kulaali ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku judd ko nekk rek jullit nga walla mu'minu nga ku gëm nga dafay des nag ci kiñ ko dénk muy ñaari way jur yi ñooy matal ak diinaam ëllëg wala ñu yëxoodal ko wala ñu nasaraanal ko kon soppale ko gi mu ngi nekk ci ñaari way dënk yi ñu ko dénk muy yaay ak baay waaye ba muy ñëw moom ku setoon la bu doon ne kaset la mt la bu defu dara lu ca leen lu ne nag dañ ko ca def bu doon këy la gu weex tàll la goo xam ne binduñ ca dara lu ca toq dañ ko ci toqal amaa nag mu leer mbaa mu lëndëm muy njëriñ wala muy lor dafa des nag ci nga xam ne ñoo ko yore kon su baa nag baaxoon na ci way jur yi xam na ne liñ jur am na lu leen ci war bu yor di yefar rek te doo yar soo liggéey du la jëriñ njëriñ ndax dafa am baat bu olof wax ci nit ki ñu ko tuddee jikko baatam jikko wax la bu neex a fecci ndax mooy liñ fi ji rek liñ fi ji rek mooy li fi sax te li fi sax noonu mooy màgg te mu màggee rek melokaanam feeñ kon ndeke nit ki yor bi ko yor bàyyi yaay yor ci biiru néegu sëy jokk aw tur muy war rafet ñu di ko ko oyee manqué luñ ko loolu lay oyoo lañ koy odd lay woddo lañ koy layal ci lay lekk lañ koy nàndal ci lay naan fañ ko tëral fa lay tëdd fañ ko féetale fa lay fare kon nu mel yaay ki ko ci def benn werante nekk ci bu ko defee nag la ci waroon nag mooy bi nga demee nag ba tuddee ko turu baax ndeg boole sa bopp ci société bi ñuy wax islam nga ñaan ci jabar ñu may la ko ci nga da ci nga da ko ci denc de sàmm sarta ya jur ca doom tuddee ko turu baax kara bu mu juddoo rek la nga njëkk a dem mooy bind alquran jox ko mu naan bis ba del ci nga wat kawar gam ale woon sa sa dëñ nga jox ko turu baax nag bokk yépp naw la ci loolu ah, boo ko matalee nag mooy bu ko wàññeeti nag na tur woowu continuer bu ko defee na ñu ne yenn tur ayu borom dafay fekk na ñu xooyee ko ko yenn tur ayu borom dafay fekk ñu xooyee ko ko ci lan du caageen diw rek Babacar mu ne naam rek déedéet Babacar nag nan la war a mel Fatimata mu ne naam de rek nga am ci déedéet Fatimata nan la war a mel parce que suy jigéen am na nu jigéen war a mel gannaaw boo amee turu jigéen. buy góor am na nu góor war a mel gannaaw bu amee turu góor su ko defee nag yow way jur bi ku góor ki fexeel ba ku góor kooku nu góor war a mel ku nekk jéemal ko ko nag Fatima moomu ko yow ku jigéen ki fexeel ba nu jigéen war a mel yëpp nga jéemal ko ko ci lan nag la ngay jëkk jël ci moom mooy wan ko ne ko nit nga mu génn ci ndof wan ko ne nag ay bokk nga xam mu génn ci tumaranke parce que nit bu am xamee ay bokkam rek xam xaq bi wax diggante mi ki bokkam gannaaw boo ko wane ko nit nga xam nga ay bokk te nit googu nit am na lu war ci nit maanaam nit am na lu war a def ak lu nit war lu nit war ta def dafa loo xam ne ku ko def rek doo nit parce que jëfu la jëfi nit ak loo xam ne ku ko def loolu la nit war a def gune gi na njëkk ba xam ci loolu parce que dañ ko war a jàngal ba mu xam mu door a mën a xam li muy def ndax moom def bu jotee dana def rek ala kulaalin waxtu bu def jotee dana def donte kon na mu def li ñu ko digal wala mu def li ñu ko digalul kon mu def lu mu xam wala mu def lu mu xamul kon nañ ko xamal def ko ci ndigal nañ koy digal li xam li baax ci moom li mu war a xam mu di ko xam su ëllëgee bu def jotee rek lañ ko digaloon tam xam ko loolu lay def kon kat bu sellee mooy ka ko ka ko yore woon moo ko ca def waaye bu sellu de mooy ko ci def lu bëri nag daf ñu sonal ci gannaaw bu ñu yoree jabar jur sa doom am njaboot muy lan muy seetaan baatab seetaan e, dafa mingoo ak seytaane damay wax toujours ne su fekkoon ne seetaan garab la e, seetaane garab la seetaan mooy ndox mi koy suux ba màgg xale bi boo ko juree yor ko da ko yafal rek seetaan ko nag mu sax moom ci li ko neex te kat gu nekk am na ay daxaba yoo xam ne ñoom lay niroo jikko feeg bu mooy àggee ci ak mag moom doomu adama njëlbeen li jikkoy band lay ame band jaan la yoo xam ne du wëtti du wëri fi mu toog fi la ko war sa